asalaamualeykum waa Sénégal salaamualeykum waa àdduna di nuyuwaat ñëpp di leen ziyaar bu baax a baax ci àjjuma ji di ñaanal ñëpp jaam di ñaan yàlla na jaamu am ci àdduna bépp. di dellu encore une fois di leen rappeler que numéro bii ngeen di gis mooy sunu numéro service commercial. képp ku am loo bëgg a publicité. maanaam mu doon looy jaay wala ci lépp looy mën di yëngatu bëgg mu am visibilité ñu mën la ko jàllalee ci YouTube bi ba ñëpp gis ko. boo ñu contacter incha allah dinañ ci liggéey ak yow. également toujours ci photo montage yi tey dañu leen a indil yeneen xeetu photo mooy yi ngeen di gis nii ci ecran bi mu doon photo yi rafet macha allah toujours ku ci bëgg rek boo ñu contacter ci numéro bii di 77 666 56 70. également dinañ ci waxtaan ak yow wax la nan lay demee. ba tey tamit képp koo xam ne am nga sa xalaat ci analyse yu ñuy def que ça mu nekk loo xam te dafa concerner série bi di maîtresse d'un homme marié boo ñu ko envoyé si whatsapp dinañ la jaaraleer sa xalaat incha allah. donc tey waa lu xew TV. ñoo dellusiwaat di leen defal beneen vidéo toujours ci série bi di maîtresse d'un homme marié. dañu gis ni temps yi débat def daf ci bëri trop ñii di ŋàññi série bi ñii di defendre série bi comme ku ci mel ni Tange Tandian gis nañ ko mu toog plateau DTV di défendre série bi. gis nañ tey ji plainte yi nga xamante ni si dal na ci kaw Marodi TV. donc ñu ci mel ni waa ONG Jamra gis nañ également démarche yu ñuy def pour ñu censurer série bi ay ñoom Mame Makhtar Gueye ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam te ne ñu ngi kaas ci série bi donc loolu moo waraloon ñu ne nañ defaat encore une vidéo pour wax ci loolu. man personnellement fi muy ñu ko commencé. d'accorduma ci ñu censurer série bi ñu arrêté ko non non non laa ànduma ci et je ne l'ai jamais ku déglu sama vidéo yi passé d'accorduma te musuma wax que ñu arrêté série bi wala ñu censurer ko. li ñu wax mooy ñu xoolaat yenn séquence yi ñuy wane ak yenn kàddu yi nga xam te ne moom la ñuy génne te ay millions ngi doomu aadama di ko dégg rafetul foofu la ñuy waxee àdduna nag lépp loo gis am na lu positif am na lu négatif lu positif li mën nañ cee appuyer ba ñëpp jot ci man cee jàng lu bëri mais lu negatif li également dañ ci war a appuyer teg ci sunu loxo ba xamal ki koy seetaan que lii lu négatif la peut-être même wax boobu noonu tey mën na yegg ci ñi nga xam te ne ñooy tourner série bi yàlla def ñoom ñu xalaat xam ne nit ñi liñ leen wax dëgg la ñu xolaat seen doxalin pour série bi gën a jaar yoon. je pense que tey ci côté boobu la ñu war a waxee mais pas que ñu censurer série bi parce que tamit également am na ay point positifs yu baax a baax am na ci loo xam te ne mi ngi jàngal nit ñi. waxoon naa ko sama vidéo bi weesu tey sàcc bi ñuy sàcc xale yi lancé nañ foofu noonu message bu am solo. Jalika ni mu nekk ci biir këram goro yi ni ñuy comporté woo donc bëri na ay points positifs mais également y a des points négatifs donc à chaque fois bu ñuy nekk di kaas ci points négatif yi également nañ xam ni aussi am na ay points positifs donc li ñu war a def mooy xool nu ñuy defaraate points yu négatifs yi ba nga xamante ni dina wàññeeku bu baax a baax ci film bi comme ça dans ce cas dinañ am film boo xamante ni si nii ça sera parce que macha allah mi ngi refléter lu bëri ci suñu réalité. mais am na neneen nuñ ko mënoon wanee ba nga xam te ne seen message dina jàll te du indi bruit bi yëpp du indi coow li yëpp parce que quoi qu'on puisse aussi tamit nañ accepter que ni am na yenn séquence yoo xam ne ci biir série bi franchement loolu noonu c'est pas joli à voir. et pour leeral quelque points tey ci li nga xam te ni si ni jot nañ ko dégg ci commentaire yi ak yeneen débat yi dañuy dégg souvent ñuy commenter wala ñuy débat ñu ni tey. pourtant yéen ñiy critiquer série bi yéen a ngi koy seetaan mais c'est bien normal tey mbir bala nga koo jàngale faaw nga xam ko te ku seetaanul série bi mënoo xam lan moo ci nekk ba koy jàngale donc mbir bala nga koy jàngale faaw yow nga gëstu ko ba pare te gëstu bi mënul wees lu dul di ko seetaan di xool la ñuy jàllale nga mën ci sukkandiku pour def sam njàngale que nekk lu positif wala mu nekk lu négatif donc cela ne veut pas dire que ñiy ko seetaan parce que buñ ko seetaanul woon duñ ci gis yi nga xam te ne moom la critiquer donc ñiy wax naan ku série bi neexul su commencé na nga zappe wala ñiy wax naan tey soo toogee ak sa njaboot série bu ñëw da ngay zappe loolu noonu c'est très grave parce que tey pour man la télévision est censée nous éduquer télé bi daf ñu war a yar daf ñu war a jàngal donc bu ñu demee ba tey ñuy wax ni que ni boo toogee ak sa njaboot série bu mel ni maîtresse d'un homme marié commencé mën nga zappe parce que série bi du séeri xale pourtant xale boobu noonu dafa war a jàng ci tele bi kon bu ñu demee bay teg ci télé bi loo xam te ni mën na ko yàq kon là il faut que ñu xoolaat bu baax lañuy teg parce que télé boobu noonu moom moo war a jàngal xale bi donc bu ñu demee ba di ko war loo xamante si nii mën na ko détourner yóbbu ko ci leneen donc là problème donc peut-être que seen idée ngeen joxe que mën nañ zappe dem ci beneen tele mais tey pourquoi pas jéem a defaraat séquence yi nga xam te ne mooy génn ci série bi jéem a defaraat kàddu yi nga xam te ne si mooy génn ci bi ba nga xamante ni si mag dina ko mën a seetaan xale dina ko mën a seetaan parce que souvent da ngay dégg ñu naan waaw série bi dara nekku ci parce que li am ci sunu société rek lay génne que lépp luñ fi wax ñu ngi koy wax ci biir kër yi lépp luñ fi joué ñu ngi koy gis ci biir kër yi loolu dëgg la nangul nañ leen ko mais munuñu comparer li nga xamante ni si biir kër gi la am fa la yam ak li nga xamante ne day feeñ télé ba àdduna bépp di ci teg seen bët tey yow mii di ma seetaan am na loo xamante ne soo toogee ak say moroom di nga ko def walla di nga ko wax te buñ la invité woon tey sañu ko faa def sañu ko faa wax waxuma la tere de boo demoon ci biti rek fu ay juróom nit daje sañoo faa def yenn nii sañu faa wax yenn nii te pourtant boo wéeteeg say xarit di nga ko wax wala nga koy def kon dëgg la li ñuy joué certes mi ngi am ci biir réew mi mais quand même ni ñu koy joué moo doy waar foofu la ñuy waxee bëri na fi série yoo xamante ne ñu ngi joué réalité Sénégal te déggoo leen ñu leen di ŋàññ benn yoon parce que am na benn manière boo xam te ne boo ko joué noonu tey sa message dina jàll te pourtant doo choqué kenn foofu la ñuy waxee donc ñi nga xam te ni fansu série bi lañ ñoom ñooy jàppale série bi loo wax tey ñu jóg daan ni waroo wax loolu nañu nangu ko ni également série bi ni ñu leen nangulee que ni am na ay points yu positifs bëri na ay point yu négatifs donc points yu négatifs yooyu dafa baax également ñu koy seggat avant ñu koy jàllale ci télé bi donc loolu il faut ñu bàyyi ci xel parce que télévision dafa war a jàngalaat certes mën nga génne li nga xam te moo am ci dëkk bi mais nga génne ko ci anam woo xam te ku ne mën na ci jàng te du choqué foofu la ñuy wax. beneen point bi nga xamante ne si nii souvent dama koy dégg muy dañuy comparer série yi daw Novelas TV ak série bi di maîtresse d'un homme marié man loolu su ma ko déggee sincèrement ça me met mal à l'aise et vous savez pourquoi parce que tey série bi nga xamante ne mooy daw Novelas TV acteurs yi fa nekk ñoom la ñu sañ seen yow sañoo ko fi nga dëkk est-ce que tey kenn ci yéen ñi may seetaan sañ na ànd ak copain wala jëkkëram ci mbedd mi di def naka su dul noonu et tubaab yi dañ koy gis ñoom seen dëkk ñu koy def buñ ne ba dañ tëkkaleeg ñi nga xam te ñoom ñooy jouer série yi daw novelas donc war nañu xoolaat suñu bopp donc je pense que comparer novelas TV ak Marodi TV du débat bi tey série yooy daw novelas TV ña koy jouer ñun ak ñoom bokkuñu culture ñoom liñ sañ seen dëkk sañuloo ko fii tey tubaab day toog ak yaayam mu wax mu ne ko maman tu ma kan moo ko sañ fii Sénégal ku ko wax tey nga de donte am na fi ñoo xamante ni sii ñu ngi koy def mais tey jii ni nga xamante ne tubaab bi noonu la ko mën defee dara du ko fekk am na koo xam ne su ko defoon nga dal ci kaw kon tey bu ñu demee ñu tëkkale ñu nag tubaab yi donc dañu war a xoolaat suñu bopp. tey doon naa nangu ñu kaas lan moo tax chaîne boobu di Novelas TV bi di daw bii Sénégal foofu doon naa nangu ñu kaas fa. mais quant à di tëkkale li nga xam te ne mooy doon Novelas TV ak li nga xam ne waa Moda TV ñoom koy teg man d'accord ma ci loolu parce que Novelas TV ñooy fay jouer ñoom seen dëkk peut-être loolu mooy seen culture mais ñun ñi nga xam te ne ñu ngi Sénégal di jouer li nga xam ne daanaka dañ koy méngale ak leneen ñeneen di jouer loolu la ñu war a xoolaat man foofu laa gisee peut-être am na keneen ak keneen mën na gisee feneen kenn ku ne ak sa gis-gis. donc beneen point bi may tëjee mooy tey souvent damay faral di gis ku wax rek ñun la sawaay am na lu gën a am importance loo war a mën a wax wala sawaay waroon ngaa mën a wax ci lii donc bien vrai que dëkk bi am na yeneen yu ëpp importance dëgg la mais cela ne veut pas dire que également li nit ñi di wax ci série bi amul importance dañ ci wara a bàyyi xel ñi nga xam ne ñooy défendre série bi nangul nañ leen ko mais ñi nga xam ne également dañuy kaas yenn point négatif aussi il faut que ñu nangul leen ko te xam ne tamit li ñuy wax ñoom am na solo kenn ku ne da ngay wax ci lii keneen wax ci leneen parce que tey ñiy wax ni que nii am na leneen lu ëpp importance que wax ci série leneen loolu ñuy wax ni moo ëpp importance am na ñoo xam te ne ñu ngi ciy wax kon kenn nit munut a tëb rek waxandoo ci lépp parce que déjà sax nit ki mënoo maîtriser lépp ci àdduna dangay wax ci lii mooy li nga maîtriser bàyyi ñeneen wax ci leneen li ñu maîtriser loolu bu ñu ko defee kenn ku ne fa nga nekk nga jàpp jéem fa xool noo fa génnee ay leçons pour yee ci nit ñi yaakaar naa dina gën a baax donc tey vidéo boobu lañ ñëwoon partage ko ak yéen di leen wax tamit que képp ku ci am xalaat bëgg ko jàllaleet également man nga ko yónnee sous forme de vidéo wala audio ci sunu whatsapp aussi dinañ la ko jàllaleel incha allah donc ñi ngi tuubaat encore une fois di jégalu ñëpp te di leen rappeler que wax jii ñu fi wax uniquement sunu point de vue la ñu ni woon nañ ko partager ak yéen. ñu waxtaan ci weccoo ci ay xalaat kenn ku ne mën ci jariñu wax ji nag képp ku mu laal ñi ngi tuub di jégalu bu baax a baax a baax tey ñaanal ñëpp am jàmm di leen joxaat dig daje à très bientôt ci benn analyse wasalaam